Sénégal damay delu ci waat di wax ni Macky Sall c'est le plus grand politicien de l'Afrique et du monde Deglu len li kenn mësu koo Macky Sall kéro bi ñu njëkkee wax né Amadou Ba moy candidat Benno bok yakar ma ñëk a Sénégal len du candidat Macky Sall Wa apéré amna ñuma na ñu dëkkal am ay jeune yu ma xam daw ñew ci man né mo Modou loy wax ni ma len du candidat ma len wait and see après ngén tok ngén xol parce que politique dañ koy lire politique mën nga wax li suba mu am lenen numu démé parce que commencement bi da ngay gis li ngay lire mais après ci kanam nga gis lenen alors ma xol ben vidéo bu ma don wax motax sax ma dellu soit dama né won tay wa passif li ñi nek di saga Macky Sall diko saga diko saga diko saga tay Macky Sall bu xeyon rek Mais légui Ousmane Sonko Benno nga ñu nit xam nga ko ci plateforme mais li mako don wax lo man aussi man xamuma mais dama don lire des fois conditions yi nim don quoi mané ne non fi, ennemi amu fi quoi amul fi lu fi jar nit di ak moromam ñu doxal bi ñu ma France wax waxam dégguma mak Sall ci limu wax mané eh def leen attention amna lu xew mais dem nañ ba ci biir ma rendre compte bu baax ne Macky Sall day xaar ko ko encourager mu génne Ousmane Sonko ak Diomaye ma def benn vidéo vidéo baa ngi ci eh, euh, YouTube bi ma ne Macky Sall qu'est-ce que tu attends pour libérer Ousmane Sonko ak Diomaye Libérer, ko kay comme yow fi mu toll def nga amnistie ba pare waaw bu balaa ñoo gëm ne amnistie bi amnistie bi def nga ko mais libérer Bassirou Diomaye ak kii di Ousmane Sonko. alors ñu toog tuuti rek mu libere Ousmane Sonko ma wax sama benn gars yi ma ko est-ce que xam nga benn affaire ah, ma ne ko Basirou Diomaye bii ñu libéré nii condition biñ ko defee biñ ko defee candidat Sénégal yëpp la ump Sénégal yëpp la ump parce que Basirou Diomaye nekk na candidat ci benn position boo xam ni kenn xamul nan la Basirou Diomaye def bët ba ëlëm loi yëpp ba nekk candidat ba génn taxaw ci position boo xam ne kenn mënu ko baare te ñëpp gis nañ ne Macky Sall opposition bi ñëpp ku nekk jaar nga ci loxoom mu mu mu mu réduire la à la plus petite expression ñëpp xam nañ ko ñëpp gis nañ ko ci laa génn def benn vidéo ma ne Basirou Diomaye Pastef kat moo investir Basirou Diomaye Basirou Diomaye kat moo joxe caution xam nga loolu def naa vidéo bi mais bi ma xamee ne Bassirou Diomaye du candidat Pastef bi mu desee trois jours avant les élections laa koy door a parce que dama gis nit dama gis nit bu mel ni Macky Sall taxaw di xool ñuy def ay lu mel ni ay maanaam euh, tëj campagne dégguma Macky Sall réagir ma wat sama copain bobu mais Macky Sall ba légui ci campagne Amadou Ba bi gungé wuko manifesté wuko applaudir wul apprécier wul mune ma non xamna day baye ba jour scrutin bi bi woné dem Macky Sall mu voter ba paré mo Marième Faye Sall mais lan ngeen dégg Macky Sall wax waxul dara il a rien dit il a il a rien dit mané sama copain boy ma la doon wax ben affaire mun naa ah, ma ne ko mais est ce que xam nga ben affaire mun naa ah, ma ne ko man candidature Bassirou Diomaye Faye ba fi may wax ak yow ni parce que qu'on di douté nan Amadou Ba investir pour bu naree ñak bir benno mëna pour mëna jamarlo ak wa wa wa APR. je ne ko affaire la ben fenn est-ce que Bassirou du candidat Macky pour pour briser te Macky Sall boo gisee mu waxam bi mu waxoon bi am bi muy bi muy pare pour quitter ne dootul dootul nekk candidat après mu toog ba ci biir wax na leen ne man day naa créer sam benn sam euh, programme boo xam ne c'est pour c'est pour euh, c'est pour lutter pour pour la paix te dinaa liggéey ak bi fi toog ma ne waaw. kon Idrissa Seck la fi bëgg a teg bon man tamit sama jañoos politique mais démb laa door a comprendre ni Basirou dëgg dëgg candidat Macky Sall <laughs> parce que Sonko non mais politique mon garaaw politique grave. garaaw Sonko bi mu génnee ne bu kenn bu kenn attaqué Macky Sall bu kenn non politique a garaaw politique beneen affaire la quoi mais nag Sénégal yàlla may nañu ay nit yu am xel ñoo fi juddoo ñoo fi mais donc lii benn ben mbir la buy ne politique du nono koy résoudre. politique du xex mokoy résoudre politique du joxe sa bakkan mokoy résoudre mais politique c'est le niveau des intelligents des stratégies et puis les stratégies les plus les plus les plus positives parce que li boko ko